mbokk yi jërë ngeen jëf ci ànd beeg seen programme thiesinfo.com dal leen ak jàmm ci xibaar yi bokk ci li ci gën a fës Abdoulaye Dieye président bu mouvement Siggi jot na ak i ñu ñoon amal na ñëpp tukki nemmeeku ci mbooleem daara bu nekk fii ci diwaanu Thiès ngir jagleel leen euh, li nga xam ne rek moo di ay denrées alimentaire ngir jàppale leen ci li nga xam ne rek moomee la ñu sumb euh, jëm ci xeex bi nga xam ne rek moom la ñuy xeex lii di feebaru coronavirus fii ci diwaanu Thiès loolee dañ ci dikk ak Thié Yacine ci biir euh, xibaar yi ginnaaw loolee conseil départemental bu diwaanu Thiès Yankhoba Diattara euh, mi njiit li daal di nay dajeek préfet ak ODCAV bu Thiès yëkkati lu tolloog 4000 euh, litres d'essence jagleel ko nag euh, lii di comité local bi nga xam ne rek ñoom ñooy saytu lépp lu jëm ci xeex lii di coronavirus mbir mu ne mel nag kii di préfet bu departement daal di koy rafetlu toll ci rek moom ba Diattara kàddu yi mu yóbbante ngir rek ñu gën leen a dooleel ci yombal leen ci réaménagement budgétaire ngir rek gën a soob seen loxo ci bi nga xam ne rek coronavirus loolee daañu ci dikk ci biir xibaar yi aide alimentaire coow li nag daal dinay wundu fii ci diwaanu cees xam ngeen ne nag euh, lii di euh, ñetti commune yi fi nekk Thiès nord sud ak euh, li nga xam ne moo di as xam ne nag li jëm ci wàllu répartition bi nekkoon na loo xam ne rek andi woon na ay coow ginnaaw gi nag kii di Talla Sylla ak préfet ak ñi nga xam ne rek ñu jiite gox yi nekk fii ci diwaanu Thiès daal dinañ ci daje nag jël ci ay matuwaay yu am solo loolee biir euh, xibaar yi ñu jeexale nag euh, xibaar yi ak euh, kàddu Kira Ndaw ginnaaw bi nga xam ne rek oustaz Ibrahima Faye yëkkati woon na ay kaddu rek jëmale ci li nga xam ne rek moo di koor gi jàpp ne xëy na bu fekkee ñi nga xam ne ñoo di médecins yi lëkkanoo ak borom xam-xam yi jàpp nañu ne koor gi àndul ak benn yoon coronavirus bu boobaa li leen mur nañ ko dàqandi kàddu yi ne mel nag irandaw Ndaw daal dina koy ñaawlu jàpp ne teguwul fenn loolee daañu ci dikk ci biir xibaar yi jeexalee xibaar yi ak artistes yi ak ak i ñooñam daal dinañu amal nag benn woy bu am solo jagleel ko wàllu sensibilisation ci euh, coronavirus mbokk internet ci info li lee moo di ponk xibaar yi faram-fàcce suut lay doon ñu dellu nuyu leen jaajëfal leen ci ànd beeg seen programme thiesinfo.com ni ñu ko waxee ci ponk yi dañu koy doo rek mouvement Siggi jot na bu président Abdoulaye Dièye daal di nay nag amal euh, ab distribution jëm ci aide alimentaire bu am solo jagleel ko yenn ci daara yu nekk fii ci diwaanu Thiès fële ci kër Maam ak mboolem daara bi nga xam ne rek nekk na fii ci diwaanu Thiès mbir mu nu mel nag ñu daal di koy sumb ñoom mouvement Siggi jot na ngir jàppale daara yi ci xeex bi nga xam ne rek ñu ngi koy xeex coronavirus ci jamono joo xam ne daanaka lépp daal dinay tagatémbe ca Yacine ñu teewlu ay kàddoom ci micro Thiès Info. ci ndigalu président lay Dièye ñu dem ci mu jëndoon ay xéwal euh, ci ay ceeb diwlin suukar ay soble pour fekki daara yi fi ñu nekk ak kilifa diine yi nga xamee ni que ñoom it nit ñi dañu leen di ci ay ndimbal mu dem fa pour def ci loxoom def si participation pour ñooñu mbir mi mun a oyof si ñoom euh, jënd na tamit lu mel ni ay produits euh, yoo xamee ni que daf leen di dimbali ci cet muy eau muy saabu ak euh, gel hydroalcoolique yi nga xamee ni que dina leen jàppale ci xeex jàngoro ji ndax jàngoro ji kat wax nañ ni comme amagul garab liñ ci mën a musal daal mooy set. loo xam tam dina leen dimbali ci seen toogaay boobu ñu toog du ñu soxla dara bay génn ci mbedd mi. loolu moo taxoon vraiment président Ablaye boole ñoog délégation bii ñu àndal mu ne demal ngeen demal ma daare euh, yi nekk Daabaay kër maam El Hadj ak euh, kër Cheikh sëñ Cheikh Ndiaye Daabaay ngeen yóbbul ma fa. teraanga yi. mu ngoog euh, mu nekkoon Thie euh, Yacine euh, bu mouvement Siggi jot na niñ ko waxee nag ci ponk xibaar yi conseil départemental bu Thiès président Yankoba Diatara yëkkati nag lu tolloog litre litres d'essence jagleel ko nag préfet ak ñooñam ngir rek ci xeex bi nga xam ne rek ñu ngi koy xeex lii di feebaru coronavirus mbir mu ne mel nag mu daal di ci ko ODCAV bu Thiès yëkkati ay kàddu jagleel ko président Macky Sall ngir rek ñu gën leen a jàppale ci réaménagement budgétaire li lay ngir gën a yombal li nga xam ne rek mooy seen xeex ci se feebaru coronavirus euh, président Yankhoba Diattara euh, Nogoy moo taataan ay kàddoom ñu teewlu ko. fan yële daje woon nañu ba def ay remise wu juróom benn junni masque ak lu ci teg ak ay yeneen yuy ñëw donc ak yeneen matériels yoo xam jàppale nañ ko district yi ak force de sécurité yi. tey nag dañu jëloon ñeenti junni litre carburant remettre ko préfet mais également ak leneen loo xam ni da koy jàppale ci liggéey bi. bi ñu la sante gërëm la. félicité la encouragé la ci liggéey bi am solo bi ngay def ci département bi ànd koog acteurs yëpp ñu lay ñaan nga nekk suñu nda ndaw wala même suñu rek waaw ci côté kilifa yi nga xam ni ñoo ne ci bopp réew mi premier muy ministre de l'intérieur ministre des collectivités ak président la république ñu ñaan la nga waxal leen ñu collectivité locale yi di dugal nañ seen loxo ci li nga xam ni mooy xeexu covid 19 mais ña su xalaatoon nañ ni suñu leen yombaloon mbiru réaménagement budgétaire sans que ñu woo conseil conseil yi ndax ñun conseil départemental téeméeri conseil lañ suñu leen bëggoon a woo ndaje day am mais fan lañu leen di dugal pour mën a demander ñu jëlee fii budget yóbbu fii te comme yàlla def na doog voté nañ budget yi ba pare fu ñu président de la république mënoon a may wala wutal ñu possibilité ñu mën a def ay réaménagement budgétaire renforcer lii ñi nga xam ne mën nañ ko mobiliser pour lutter contre le Covid 19. loolu defe ni côté local yi suñu leen ko permettre woon dina dina leen permettre ñu gën a dugal seen loxo ci mbiru xeexu Covid 19 bi ci Sénégal. mu ngoog euh, mu nekkoon euh, ba jatara président conseil départemental bu diwaanu Thiès ñu àddu wax ci leneen ci biir xibaar yi ba tey ak préfet bu departement de Thiès daal dinay rafetlu nag mbir mu nu mel te it kàddu gi mu jàpp ne rek loole luy mata euh, luy yomb la sax ci njiitu réew mi ndax it ñoom itam bokk na ci li nga xam ne rek ay jàppandal yu ñu mën a teg ngir ñi askan wi mën a soob seen loxo ba tey ci li nga xam ne moo di xeex lii di feebaru coronavirus ñu teewlu ko moom préfet du département tant que préfet en tant que président du comité départemental de gestion des épidémies moo nekkoon ñëw di nangu ci loxoy président bu conseil départemental euh, bu Thiès benn appui contribution boo xam ni nii euh, ba mu ñuy jox matériel ay masque ay gel ay matériel médical la ñu ko diggoon immédiatement mu ni ma loolu lu mën a nekk la ndax lu war a nekk la ba mu ko waxee ca gannaaw ëllëg sa la ko def muy enveloppe nest bu cinq millions bu dara tojul boobu moo nu permettre hmm, vraiment ci ci ci diligence am tey ñu mën a am lii nga xam ni moom la ñu jox léegi lu toll ci quatre mille litres nest de carburant alors la ca des fi mu nekk nii ma nga ñu denc ci compte bi ñu ubbi ca PAMECAS donc vraiment ci turu président de la république ci turu gouvernement bi vraiment dama leen di gërëm am na leneen loo toftal sa wax muy euh, que ñu mën na leen euh, jàppale dimbali leen yéen collectivités territoriales yi euh, ñu woyefal procédures yi nga xam ni mooy tax seeni kuréel di daje wala boog mooy tax ngeen di mën a génne ay jumtukaay pour mën ko jëmale ci askan bi ma ni loolu yóbbante bu neex a yóbbu la hmm. ndax fañ ko jëme ña déjà xam naa ni yéen ak ñoo ma bokk xalaat Talla Sylla maire bu Thiès ville ginnaaw ndaje bu mu dajee ak préfet ak maire bi nga xam ne rek ñoo nekk fii ci diwaanu Thiès Lamine Diallo ku ci mel ni Aliou Sol ak Pape Bassirou Diop ngir rek mën a xoolaat ci aide alimentaire bi ñu jagleel diwaanu Thiès ana ban anam la ñu koy séddale ci répartition bi nga xam ne jamono yi juróon na ay coow ci ñàkk équilibre boo xam ne rek amoon na ci mbir mi nu mel nag daal di nañ ciy déggoo ba tënk ci Talla Sylla ñu teewlu ay kàddoom ci micro Adama ne ndimbal li nga xam ne mi ngi war a jóge ci état bi war a jëm ci waa Thiès ñu am luñ ko ci jagleel waaye ndeem Thiès ville la te ville bi dafa am ñetti commune ci biir ñu séddale ko ci diggante woon ñetti communes yi mu mel ne dañoo waxoon ni séddale bi dëppoowul ak li war a am. ah mu ñëpp nag d'accord ne nañ toog waxtaane ko. bi ñu toogee waxtaane ko ci la ñu ne. li ñu tegaloon. mooy dafa am benn registre bu fi nekkoon ba pare. boo xam ne commune bu ci nekk am na lu mu ci amoon mu am lu ci war a dolliku mooy ñi nga xam ne bii euh, Covid 19 bi duggee am na ñoo xam ne am na lu mu def ci seen liggéey ba xañ leen lu bëri ñooña yayoo ndimbal ñooñu ñu war leen a yokk ci list bi nga xam ne amoon na fi ba pare. pour commune Thiès noor dañ cee bindoon ñaari junni ak juróomi téeméer ak fanweer ak juróom-ñaar. ñu jàppoon. ne dañ ci doon yokku ñaari junni ak juróom-benn téeméer ak juróom fukk ak ñett léegi dañu ne commune Thiès noor lañ tey yokk ñetti junni la ak juróom-ñeent ci ay ménage boo ko dajalee mu doon juróomi junni ak juróomi téeméer ak ñeent fukk ak juróom-benn ci registre national unique bi def ci amoon ñaari junni ak juróom-ñaari téeméer ak juróom-ñeent fukk ak ñett ñu décidé yokku ca ñaari junni ak téeméer ak ñaar fukk ak juróom-benn kon mu doon ñeenti junni ak juróom-ñeenti téeméer ak fukk ak juróom-ñeent Thiès Est ci registre national unique bi amoon ci ñaari junni ak ñaari téeméer ak juróom-ñaar fukk ak benn muy 2271 waaye ñu mujj ci yokk ñetti junni ak ñeenti téeméer ak fanweer ak juróom muy 3435 mu def juróomi junni ak juróom-ñaari téeméer ak juróom-benn mu ngoog ñu àddu ci euh, leneen kàddu ki randaw mi nga xam ne nag daal dina yëkkati ay kàddu ginnaaw Oustaz Ibrahima Faye ni mu ko waxee woon jëmale nag euh, ci weeru koor ànd beeg coronavirus ndax dina am wala du am kàddu yu mu ci yëkkati woon nag euh, kii di Oustaz si randaw daal di koy ñaawlu jàpp ne loole moom àndut la benn yoon ak xam-xam ndax koor moom suñu borom a ko moom te moom rek moo koy fayal boppam i randaw ñu teewlu ay kàddoom. dañuy woor médecin ñemewu koo ŋaaŋ njiitu réew mi ñemewu koo ŋaaŋ benn sëriñ ñemewu koo ŋaaŋ bu leen woor laa hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim hmm. kenn ñemewu moom kay dañ naan ñi feebar hmm. mënuñu boole feebar bi ak koor ñu ne d'accord ñooñu dog waaye ku dara dalul kaay ma wax la nag oustaz xam nga mbir mi lan la ñi koy daganal ñëpp mooy ñi dul woor de nam mu ca yebu ca ku la ca ba max nga ne ca puy koo dégg mu naan ah wuy mën naa ne daa bokk ci ñu dul woor rek li nga mbir moo gis gaa yi di ko ñu yëkkati ku koy oyofal rek da bokk ca partenaire yi loola mhm. waaw waaye jullit weeru koor nga xam ne day faj ku ne xam ne ne koor day faj dina faj sa bakken dana faj feebaru biir mhm. dana oyofal yaram dana la dégraisser mhm. nga oyof yii ñuy naan pour dégraisser koor a ci gën a ay koor a ci gën a ay nga dog jël nga jël ndox mu tàng naan mu gën laa dimbali ñu xëy bëgg indi idée boobu rëbëj xelu nit ñi comme li ñu jëlee feebar def ko ci xelu nit ñi. ñu jeexalee xibaar yi ak artistes yi nekk fii ci diwaanu Thiès ñoom Dame Sène ak i ñoñoom daal dinay génn nag woy bu am solo euh, jëm rek ci euh, sensibilisation ci euh, lii di feebaru coronavirus lii lii la nag mu nekk loo xam ne rek dañu ko def ngir rek gën a sensibiliser ak askan kenn ku nekk mun a xam fan ngay teg sa loxo ak anam ba nga xam ne rek noonee la ñu war a xeexee lii di pandémie coronavirus fii ci diwaanu Thiès son bi ñu daal di koy teewlu extrait bi ñu ci am.

mbokk internet Thiès Info lii de moo fi tukkee woon ci xibaar ki leen ko doon faram-fàcce di seen mbokk Ahmadou luy feggoo woon ak Adama Ndiaye ci wàllu xarale gi cant ak ngërëm ñeen na leen jox leen rendez-vous beneen yoon jërë ngeen jëf.